isolants. c'est vrai une bagarre une bagarre à la permanence. mu nekkoon une réunion euh, du département de Dakar élargie à la région euh, ñu ne say ñoñ ak ay ñoñu Diouf Sarr ñoom ñoo fa xeex ba toj permanence bi xam nga loolu luy am la ci politique. luy am la ci. c'est normal non c'est pas normal c'est regrettable. c'est regrettable ay nit di xeex alors que li ñu objectif bi nga xam ne ñun responsable yi ñun ñëpp d'accord nañ ci mooy ñëw sargal président de la République maintenant politique moom mooy ànd ak yenn situation yi mais bon yaa euh, waxtaan nañ ci après entre euh, responsable pour fexe ba loolu bañ a amati. c'est ce qu'on Diouf Sarr da doon wax waxu candidature am mu ne y a deux candidats pour Dakar. nga dagg ko nga ne ko waxal sa waxu candidature. oui mais man li euh, xam nga la ma la wax lii léegi mooy li li li nekk ci man c'est-à-dire man bu may wax candidature lu keneen dama koy waxal man damay dem ci président de la wax ak moom. parce que nag am na loo xam ne dafa jiitu man te da nga ba président defal mën naa jàpp ni defalu ko kenn wala boog ñu ko defal bariwul tey jii je suis le premier ministre. man bu ma dee wax waxi candidature wala mooy wax ci réew mi. vous étiez dans Dakar aussi. mais dafal ndànk mais Diouf Sarr y' a absolument rien je je je li am ni moo méttee noonu la ko méttee euh, la veille bi loolu di am moi je suis j'ai rendu visite à Diouf Sarr chez lui on est d' accord surtout dañuy waxtaan ak lépp. vous êtes d' accord surtout yow ak Diouf Sarr que. parce que même sur ces questions de candidature. lui comme moi en tout cas on est à l'écoute du président. mais lui il est d'accord avec vous. qui être à l'écoute du président. non pas être à l'écoute du président non mais je je l'ai pas parlé de ma candidature li ma la wax léegi man waxuma kenn dama bëgg a nekk candidat kenn. j'ai reçu au moins au moins de peut-être de personnes bi président wax ak léegi je reçois à longueur de journée parce que euh, moi sama mission mooy dimbali président pour que njaboot gi doon benn mais ku ma ci woo dama lay wax nañu ànd juboo nañu fàtte suñu bopp naa ci biir wax ji diw di nit dina la wax man daal bu ma sañoon diw lay jox bu ma sañoon yow lay jox walla keneen mais ça c'est démocratie la liberté la mais li am solo mooy ñun ñëpp nañu ànd doon benn et il de rancœur en tout cas. mais loolu dafa xaw a tiital nit ñi et euh, rafetul politiquement. rafetul rafetul ça c'est vrai rafetul euh, c'est am na ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr ay nit am ñoo sookee mbir bi et puis boo xoolee politiquement euh, bon Diouf Sarr était la la candidature de Diouf Sarr euh, souvent presse bi ñu ngi koy critiquer il a perdu euh, warul euh, warul aspirer à une candidature mais politiquement ça a beaucoup profité à Ablaye Diouf Sarr cet incident là. oui c'est un incident regrettable. booy situer les responsabilités dañ la piéger. euh, voilà. non je ne pense pas je pense que ñun euh, ñëpp nous étions de bonne foi euh, nous une famille maintenant politique tu ne contrôles pas toujours li nekk ci sa ginnaaw en tout cas man loolu laa jàpp mais dans tous les cas je veillerai en tout cas bu ñuy dajawaat que lu mel noonu euh, bañ bañ fa am politique yenn saa yi day ànd des débordements c'est passion la nit ñi dañuy mais bon euh, lu may ñaawlu la rafetlu ma ko violence. Euh, sous aucune forme euh, rafetul euh, baaxul mais bon on veillera à ce que loolu bañ a amati. alors ñu ñëw nag.